Anyways.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 furaas dal li xëddeen ma ne nag la kilifa ga waxoon mu ngi bëgg a dikk ndax nag réew mi léegi li mu sëriñ saa ngi bëgg ëpp li mu taalibe yi waay sëriñ du métier waay moo tax fi mu ne loo xoor gune ñu ngi leen ciy tudd chef religieux bi nag li mu def gi na dayoo ndax daa jël ay image ek ex jabaram yoo xam ne ñoom ñaar nañu nekkee woon maare détaali tal di koy publier ëskay xam nga ne ki sëriñ wayu dëgg la ma sëriñ bi mu ngi wuyoo ci turu Esmaane moom daal nee ñu dafa amoon problème ak jabaram ji diwu wuyoo ci tur yi jeey di ab artiste chanteuse ba naka noonu sax ñoom ñaar ñu nekk ci yoonu tàqaliko bi loola amee nag ci la chef religieux bi daal di jëlee vidéo ndaw si yoo xam ne maara détaali daal di koy publier ay waay sëriñ bi def nga lopp de ndaw si nag bi mu demee ba gis ay vidéo am di circuler dafa dal porte plainte sëriñ bi ci kanamu attekat bi nag ndaw si nee sëriñ bi di ex jëkkëram daf ko envoyé message ne ko dinaa publier say vidéo <laughs> ma ne man dama xamul naka la ay ponkal di sëye ba noppi di filmer seen bopp ba muy teeri ci internet <laughs> mbaw mbaw ma ne ndaw si sax daf cee teg ne sëriñ bi ay audio yim doon waxtaanee ak benn xaritam xam naa waxtaan yi nag xaw doy waar moom lañ njëkk a envoyé frère am <laughs> moo tax ma ne jigéen ñi bàyyi leen yenn wax yi ngeen di wax ci wax saa bi soxna si nag ne fi mu toll nii vidéo yi bañ ko publier ci internet bi dañ koo dëkkee tifaare ay saagay nday teg ci nag ne yàq gi nga xam ne tey jëkkëram ji yàq na ko imaasam yàq addunaam fokk damp dana ci am ba tax mu ngi réclamer juróomi million <laughs> ma ne ko loolu day ba léegi fóotul yëf yi de jëkkëram ji nag di sëriñ bi depuis le 17 décembre yoon teg na ko loxo moom tamit ci kanamu àttekat yi bi ko laajee daf ne audio yi depuis Italie ko ko envoyé naka noonu ci la bindee jabar ji message gaz xamal ko ni ko say audio mu ngi circuler ci internet bi teg ci ne moom sëriñ bi vidéo yi ñu nekkee nag ñoom ñaar te mu doon ay vidéo yoo xam ni maara dee taali moom ab xaritam la ko envoyé xoolal ma sëriñ bi rek xam nga ni kii du sëriñ waay ne nag li tax mu def njombe lu ni mel du lenn lu dul dafa bëggoon récupérer doomam bu am trois ans moo tax nag fi mu ne yoon daan na ko ñaari atu kaso yoo xam ne dana tëdd ñaari weer ala man ko lu toll ci téeméeri ju ni moom sëriñ bi ma ne ko waaw góore waay ma ne ci kanamu procureur nag procureur bi nee na sëriñ bi xam nga ne ak sa statut chef religieux bi nga yor waroon nga jombale sa bopp li ma ne ko procureur waay kii du sëriñ waay ay réew mi li fi xew ëpp na moo tax ma ne jàngoro gi dal réew mi moo gën a graw corona la wax la xew ca jëppal doy na waar as ndaw su doon waaj a marié lañu fa teg loxo ci wàllum càcc ay waay réew mi dee ma ne ndaw si mu ngi wuyoo ci turu MS waroon na célébrer mariage am le 24 décembre moom daal le 11 décembre bi weesu moom ak M Doucouré dañoo dem ca jëppal dugg ci bitiku M Ndiaye ne ko ay fulaar lañu ñu bëgg jënd naka noonu bi leen M Ndiaye borom place bi wane ginnaaw ngir di leen wan yan couleur fulaar la ñu bëgg jënd ci la seen yeneen ñaari copine dal di dugg si ci biir boutique bi di Abangoura ak F Kayta dal di sàcc ku nekk ñetti tisi brodé <laughs> pëtalaw gannaaw bi ñu génnee na ci la mu njaay di borom place bi constaté ne ay tiseem dem nañ ci la leen toppee ba ñu mujj leen a teg loxo ci kanam atekaay yi na a bangura ak ef kayta nee ñu ñoom ñaar gannaaw ba ñu sàccee tisi ki seen biir grand mbubb yi lañ ko làqoon em saaxo waroon a marié nag ci tisi yooyu ñu sàcc la waroon a sañse ba tey ci kanamu attekaay bi efkay taaga bangura nee ñu nag lu tax ñu sàkkiti si seen xarit bi di em dukkure dafa am cancer ñu bëggoon koo dimbali ma ne nag sénégalais yi yéenay at ax réew moom lu ne fii xew waaye nag bi ñu dem te souhaité wu ñu joyeux suñu mbokku chrétien yi euh, di leen wax que ne Noël ak jàmm Sénégal moom benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar mu doon seen xibaaru buzz dig daje samedi ci yeneen xibaaru buzz